xaasim yaa ngi doore ay tayaay laay yaa goo yàlla ngi eme yal na la yàlla yeer aram jaañ awa jaañ maam saw jaañ mi deesi tongoor njogo yaay baaba jaañ tago yaal nge asim laay yaa ngi doore maam baaba jaañ ngaraaf tago yaal nge jaañ ak jaañ ay tayaay laay tagooya alage ene yal na la yàlla yeer aram jaañ awa jaañ maam saw jaañ mi dee ndeysaan tey seen dëngi noonu dugg si na am na cosaan la bu ngay joow gaal ga ànd ak waa si nga ñoom joolaa digganteem ak ki nga xam ne mooy Gora Sock Talla Ndiaye le 27 juillet arène nationale ak Fallou Ndiaye ah, waaye li rafet na waaye waaw waaw leen ay lébu lañu ay lébu lañu ay lébu lañu ay lébu lañu ay lébu Kewel Info Lit TV Leewtoo ah. ñoo fi teew tey fii Ndaayaan dëkku Tyson 2 mhm. fekk nañ fi nag ay champion Malick Ndiaye 37 fou waaw Onge Ndiaye Tigre de Somone ñëpp di ay mbër ñu xam leen ak waa Tay Singa Malick naa maa lay bëggee waaw ah, maa lay fay di la sant di la gërëm mhm. di leen yàlla fay waaw combat bi dafa doon combat boo xam ne combat bu ñu fonk la mais lu la booleeg Tyson 2 lu ma booleeg Tyson 2 dama nekkoon 37 fou tas 37 pour ñëw taay si nga loolu ma boole loolu ma boole Tyson 2. mu doon loo yóbbante Gora Sock. Gora lu ma koy yóbbante buñ ko jàppee làmb ji jeex. jàpp rek làmb ji jeex na. non Tyson 2 ku nekk xam na ko. champion la bu fekkoon ma ne la samaay champion mbëri mbëri si kaw jël nañ ko du góor Gora Sock bay bëreeg moom. barki alxuraani karim moo ko raw fop kon ay saa la war a ay kii nu mu tuddati waay. ay Yekini Junior ay ay ay ay ay Tapha moom mooy ay ay naataangoom mais Tyson 2 day daan ba ñu yaakaar ne si kaw la jëm mu ñëwaat ci suuf te ñun loolu ñun ñun loolu ñun gëmuñu loolu waaw te waa Pikine 100 pour cent bu ñuy wax jàppale wuñu Tyson 2 100 pour cent bu ñuy wax mbarki Alxuraan Karim gis nañ ko bu Tyson 2 amee bu ñu ko doon jàppale comme ni ñu jàppalee Boy Niang ko jàppale comme ni ñu jàppalee Tyson 2 comme ni ñu jàppalee euh, Ama kon kon Tyson we weesu na dañu waxante dëgg bu ne 100 pour cent ñun Pikine ñoo tax ñu ne 100 pour cent Tyson 2 dafa nekk Pikine di di xeex ndax dëgg la ndaan la dëkk mais Pikine lay takkee ngemb Pikine lay bàyyee koo dem bëri kon waa Pikine dañ ko war a jàppante bu ne 100 pour cent kon ñëpp la mais 100 pour cent bi du ay tànn ak tànn ay tànn fii ay tànn fii waaw. ziar di la delloo ziar lu bëri waaw. fii nga dëkk wala. waaw man fii laa dëkk koñ waaw. kon sa grand loo koy di ko wax rek lamba la moom lamba moom kenn du ko si wax defal lii wala defal ne la yaaga na si du si tey du si démb quoi lii mu def nii nag man dama siy rafetlu parce que fii ndayaan dañuy wax dëgg rek mbër mu ngi fi nar a nax saay de waaye lii nii dina man a tax gars yi tamit gën nu man a mën a jàppale quoi ñaaka jàppale bi rek moo nu jàppa waaw nanu gars yëpp geesu nag jàppale nu waaw sa waay nag nu ngi koy ñaanal si combat bi yàlla na ko yàlla may ndam lu séedug buy waaw yàlla mooy maye ndam yàlla na ko yàlla may ndam tigre waaw maa ngi lay ziar bu baax. yow Ndayane nga dëkk wala Somone. maa ngi dëkk Somone. waaye Somone ak Ndayane benn la ci man. lan la booleeg waaw da suñu mag bu baax di wane exemple boo xamante nii tamit fu mu taxaw rek ñu ñëw taxaw si ginnaawam. waaw waaw di ko ñaanal rek ñun dañ koy ñaanal rek yàlla defal kandam ndax xam naa ne su doon béré rek dépassé na fii mu toll nii waaye làmb moo am nu muy doxoo am nu mu baaxoo mais dañ koy ñaanal rek. dara jomb ko si làmb te dina ci am lim si bëgg incha allah. bëgg naa la mbaa am nga jàmm. am naa jàmm bu baax. naka yëngu yi. waaye nii rek nu ngi si kawam. ndaayaan. ndaayaan mu ngi nii di neex rek. ana si nga. ña nga ña ngi. gay waa taay ñu ngi taxaw. waaye mais am na ñoo xam ne dañu jàpp ñëwuñu ñëpp. waaw. tey bu ñu ñëwee fii ndaayaan ñu doon xaar open press nga def ko Pikine nga def ko ndaayaan lan mooy motif nga def ko ndaayaan. avant ma laa wax dara may nuyu ñëpp di nuyu waa ndaayaan bu baax a baax Popenguine Popenguine séréer waa Cigi Raafa Samkeej Somone campement Ngekox di waa Sinja Jifir waa Dakar Yoff hmm, waa Njaasaan waa waa waa Samkeej waa Raafa waa Caafra maa ngi bu baax a baax dañu si jàpp sama combat waaw waa Géraw waa Ñangal yeen toodan di tax fépp waaw damay kontaan nag si gars yi ne ku ci mel ni Ange Abdou Faye Tigir waaw bokkuñu écurie tey mais tey dañu ñëw jàpp si bés bi di gërëm waa tay si nga bu baax a baax a baax a baax ma seen fay waa ñetti mbaar ku si mel ni ñoom suñu côté sa jigo grand Cheikh Ndoye amul seen fay suñu yi boo limee nay jum gisoo ñoo jóge ba Pikine ñëw toppase ma waaw tey bu ñu ñëwee eh, fi nga xam ne nii parce que balaa may jàll sax ci adversaire bi Malick Ndiaye daa am lu mu wax léegi nee na waa Pikine jàppalewuñu la est ce que loolu dëgg la maanaam moom dafa jàpp ne 100 pour cent Pikine bi yow bokk boolewuñu la ci non ñoom waaw li ñu wax tey 100 pour cent Pikine bi man gisuma sam bopp quoi gisuma sam bopp te man bu may bëre ji fu ma fu may takki sama ngemb du Pikine ndaayaan laa dëkk mais Pikine laay takki sama ngemb Pikine mën mbër moom fa daax a bëre wala mën mbër moom fa ëpp victoire ah amul waaw ñoom waa Pikine dañu si war a jàpp bu baax a baax a baax dem xam ne écurie Tay Shinga laa nekk dem woo dew ma fenn maa ngi écurie Tay Shinga kon bu ñu amee ndaw Pikine Pikine la koy indi Pikine waaw kon ana ana Ama. Ama ngi fi. mu ngi fan mu ngi Pikine wala mu ngi Naaya. mu ngi Pikine ah. waaw. léegi nga jëm ci combat le 28 yow sa open press sax da nga koo teel a def lu waral teel a def bi. non boo gisee ma teel ko def xam nga man tey Dakar laa nekk mais dama ne open press bi tey du ma ko def Dakar ndeyaan laa koy def xam nga lan moo tax ma di ko def ndeyaan open press mosul ñëw fii ñu def ko ndaayaan te man ndaayaan laa juddoo fi laa yaroo fi laa hmm? moo tax tey ma jël open press ma ne tey ndaayaan laa koy indi. mais du dara du def dara. waaw pour feeñal ndaayaan waaw. léegi Gora Sock moom la mu waxoon ba tey chaque jour loolu lay continuer wax moo la laajal boppam te bu la ci dal nga pare. xam nga ne wax dafa nooy wax aka moo nooy ku xam bu baax. xam ne ay wax daanul liggéey mooy daan Tyson 2. mais daal liggéey moom xaw ma li mu liggéey ma li ma liggéey laa xam. Gora Sock bu dee mbapat maa ko ko daaxa. maa ko gën a siiw mbapat Gora Sock ma dem naa équipe nationale demu fa bu dee bëre dóor man maa ko ëpp combat si dóor te maa ko si ëpp fut maa ko si ëpp fula te bu jour ba man dinaa wane jom wane fula wane fayda li ma waan daan daan yebe rek. waaw yow daay suga ah, ah, man su ma daan bëri magi ndeyaan ñoo may woo teg ma woo supporters yi wax ne carrément bu ngeen demee stade bu leen xeex bu leen yéen victoire moo leen fa yóbbu dem leen jëli seen victoire ñëw te bu soobee yàlla noo la daan demee rek comme d'habitude rek damay ñëw ñu wax ma li ñu ma daan wax hmm? ma dem daan ñëw loolaay loolaa seex moom mais du ay wax affaire bi du ay wax affaire bi liggéey la rek jëf rek tey ji làmb tey ji waxoon naa ko góor a soog tey combat moom laa gën a respecté samay combat parce que làmb boole wax moom ah, te nga lekk avancé tey boo gisee ma jël ko bañ année balance tey mbër di am ko tey mbër di entraîné di entraînement béréwoo tey pour lan du am moo tax ma jël góor a waaw te li ma li ma ko jël nag bu wër rek jaar si jaala dem bu soobee yàlla. jaar jàll day yomb. waaw lu yomb lay doon wala. ah. jaar jàll nga wax de ak góor a soog est-ce jaar ci moom jàll parce que xale la ci li nit ñi waxta am na doole macha allah. waaye doole bu fekkoon ne doole la Eumeu Sène dina bëre ak Bombardier wala Modou Lo dina bëre ak Bombardier affaire bi du doole te góor a soog bu ñu suma ko dina xam ne man maa ko ëpp doole fuuf man maa koy corriger maa koy wax ni ngay taxawee ne la ngay taxawee. te man bu ma bu ma bu ma gëstoo gis waa Ndaayaan waa Pikine ñun ay lébu lañu bu boobaa damay gën a wax yow surtout gaynde mooy ñëw bu boobaa pokaar yi ñoo ñëw tay si la léegi diggante ah! diggante diggante Pikine ak Parcelles lan gis nañ mu nar a tar ndax da ngay bëre bés boobu am na sa rakk buy bëree Eumeu Sène war a bëreeg Modou Lo Franc ak ki nga xam ne mooy ngeer ah combat yi seen diggante ak parcelle ni fi mu ne nar naa tar ren de. si ñaan yàlla may nu si ndamul seede guy ku si mel ni tampon ndaw day bëre day bëre waaw day ngeer day bëre ama seen day bëre Tyson 2 day bëre te damay ñaan nun yàlla nun may nu si ndamul seede guy te bu boobaa nan andi fit andi jom andi fula amul yox yoxi man ku ma xam xam ne damay bëre du may du ma yàq combat du ma yàqal damay bëre bu amateur yi kontaan waaw te te jour boobu dama bëgg waa Ndeyaan ñëpp ñu mobiliser wu. ñëw mobiliser wu ñëpp. Jifir Joal Palmarin Pikine ñëpp bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp ñu jàpp si bu baax a baax a baax ñëpp ñëw. am na laaj bu ma ceer yoon neen léegi nee na comme nee nga 100 pour cent Pikine jàppale wuñ te dañ ne 100 pour cent Pikine suñ koy wax Eumeu Sène a tax Boy Niang ak Ama Baldé ñooy bopp bi ñooñu ñetti ñooñu kañ moo ci manqué ci sa côté. man man si ma côté laay wax. tey jii ñaata combat def pikin hmm? 18 combats mais 100 pour cent man maa si gisul sama bopp. Eumeu da laa jàppalewul wala Boy Niang wala Ama. non dañ ne 100 pour cent Pikine bu ñu ne 100 pour cent Pikine bàyyiwuñu mbër. waaw ñëpp la ñu wax 100 pour cent Pikine bi daal nañu yemale ñëpp. waaw nañu mobiliser jàppal si combat bi waaw. est que yow di nga leen demal bu ñu amee combat di nga dem jàppale leen wala jàppale leen ci yu mel noonu. tey ji damay am combat tey jii man seen open press sax man du ma ko yëg. waaw tey jii kon an 100 pour cent bi. bi ma dalee bëre 18 combats kan moo ma si ëpp victoire. Pikine kan moom ma ëpp victoire. ah man daal 100 pour cent bi yow da nga jàpp ne du lu nekk. non 100 pour cent man gisuma sama bopp man dama ko gisul man mosuma gis 100 pour cent. waaw gisuma sama bopp. Parcelles moom daa mel ni seen bosa ngay dox ndax fekk nañu góor a soog Modou Lo Papa Sow Franc ñoom ñëpp ñuy entraîné Yékini si ñoom te yow la ñuy waajal. Pikine ñi nga tuddoon maa leen daax a bëre. ma tudd fan ñi nga ñëpp. Modou Lo. waaw Modou Lo laa wax. ñi nga tudd ñëpp ñi nga tudd ñoom. Papa Lo Papa Sow Yékini si ñoom. Yékini si ñoom ñëpp maa leen dàq a bëre. dañ koy daw waaw. waaye bokkuñu sax niveau. c'est que sax ñu la raat te ñu koy wax ba suba dama koy wax te fu wóor laa ko teg. mais yow nga xool Modou Lo ne ko mal dàq. déggoo li ma la li ma la fu wóor laa ko teg tegu ma ko si ay waxantu nii rek dama ko teg ful wóor. Modou Lo da ngeen a xamante wala. déggoo li ma la ñëpp daje nañu équipe nationale équipe nationale la ñu jaar ñëpp ku su nekk xam na sa bopp nag waaw te man du ma ragal man bu jour combat damay andi li ma fi andi fit laay andi jom andi supporter du doy sëkk waa ndayaan ñëpp supporter ñu ñëw jàpp daan ñibbi bu soobee yàlla te man li may wax ne amul amuma tànk ginnaaw tànk kanam laa yor Alioune Sall mosul dagg sama mil francs te ñaanuma yàlla mu dagg sama 1000 francs su ma ñëwee man xaw ma loolu de xaw ma ay béré coro coro yi de damay béré béré laay def damay béré dem ñibbi ci Gora Sock amul amul lu ma si maytu lan laay bu ma nee maytu si kon ma tigi sama ngemba ñëw fii di dem géej mbaa ma dem moodu moodu amul dara loo xamante ne moom dama ko dama si moom ah. waaw. léegi looy mujjee wax looy tàggoo ñu li may mujjee wax mooy di gërëm ñëpp di gërëm koo xamante ne suñu maire monsieur le maire Mansour Diamb maa ngi koy gërëm bu baax. ku si mel ni euh, ñoom Ali Samba Ciss Mouhamed. ñoom Otis hmm? di gërëm ñëpp di ku si mel ni Sarlo ñu ngi koy gërëm bu baax a baax da siy jàpp ku si gërëm sëñ Mbay sëñ Mbay Caandum sëñ Mbay Caandum bu baax a baax a baax di ko gërëm bu baax di gërëm waa Pikine ñëpp waa di gërëm Cheikh Sarr hmm? di maa gërëm ñëpp ku si mel ni Souma ah Grand Ngeñ ah, di gërëm ñëpp di gërëm maa ngi gërëm ñëpp daal di gërëm waa Ndayane di gërëm Aliou di woo Abibu ñu jàpp si bu baax a baax Seka Ndour Omar Sané ah maa grand Mbaye Sène magu baxaw magu magu Jordan maa ngi koy gërëm bu baax a baax baax da si jàpp ku si mel ni Mamor Tall ah Pape Seka Ndour Pape Diouf Pape Diouf ñëpp dañu siy jàpp bu baax a baax a baax waa Pikine ñëpp aw ma seen fay waa Pikine ñëpp aw ma seen fay ñu jàpp si bu baax ku si mel ni Sarlo Sarlo da si jàpp nday nag aw ma fayam nday seen da si jàpp bu baax parce que añ yu toog tey sax moo ko joxe ku si mel ni Ndeye Sène dama koy gërëm bu baax moom kese moo fi jóg jàppale ma si añ yi xamante ne moom la ñuy togg fépp di gërëm ñi xamante ne ñoom ñooy togg suñu ceeb yi ñoom ku si mel ni Fane ñoom gaamu maa gërëm ñëpp daal di kontaan di waa sant waa dëkk bi waa Ndayane ñu gën si jàpp bu baax magi Ndayane yi gune yi paa yi yi ah ñi xamante ne ñoom ñooy chauffeur Jakarta yi ah ñoom ñëpp ji jibril set ji naka ñoom Amadou joom dañu si sonn bu baax a baax tey dañu si sonn ñoom Nixon gars yi dañu si sonn bu baax ñoom xam nga ñoo préparé affaire ku si mel Moot Fay Ousseynou ñëpp daal dañu si jàpp maa ngi woo ama seen nag mu jàpp si baax ku si mel ni xuja waa grand Cheikh Ndoye da siy jàpp bu baax ku si mel ni suñu kot sa jigo am nu fayam ñun kontaan naa si waa équipe bi waa taay si nga gisoo ñu ngi joge ba dakaar ànd ak man kon kontaan naa bu baax yéen moom presse bi aw ma seen fay waaw Babacar ñoom Lamine am nga rek ah. Thier waaw maa gërëm ñëpp ñi xamante ne ñoo ngi jóge ba Dakar sonn waay maa ngi gërëm ñëpp maa ngi bëggee ñëpp bu baax di leen jox rendez-vous vingt 27. te le 27 bugguma lu yomb. yéen supporters yi sax laay waxal bugguma lu yomb si leen. yéen ñëpp na ko ñëpp mitil. ñëpp nañu ko mitil. te dañuy ñaan le 19. le 19 le 19 mooy football. Sénégal mooy football na si ñëpp jàpp. Sénégal na si ñëpp jàpp nu mu jël final. waaw ñëpp. ñu jël final te gars yi yëngal leen si yëngal leen si kaw rek man ma yëngal si suuf ñëpp ay lebu lañu ay lebu lañu ay lebu lañu 100 pour 100 bàyyi gërëm def